Euh, di la di la ñaanal jàmm quoi mais ñu ngi si jàmm instant bi ñu ngi station Kër Massar mhm. ñu ba Ngaay ñëw di jaay si daalu Ngaay quoi te ne xam ne ne Ngaay moom qualité la mhm. waaw ñu ñëw fii ànd ak sama doomu nday Moussa Ben Ngala sama xarit sama lépp moom mooy liggéey daal yi quoi mais man maa koy accompagner ci njaay beeg lépp demoon na Ziguinchor sax jaay fa dàll mais après bi ñu jeexal ñu teel a ñëw fii bi fii quoi Kër Massar oui. suma juumul ba ngaa leen jógee quoi. daal euh, euh, di moom wax dëgg yàlla yi ñoom ñu ngi ciy bopp quoi parce que ba ñu yàlla dimbalee ba nag ñu nekk ay ndaw ci métier bi la xam comprendre nga képp koo xamante ni jaay nañ la dàll di ci gis euh, njariñ quoi dàll bi lay jaay même bu fekkee da ko jaayee sax même pas 15000 francs wala 10 000 francs maximum quoi ñu à ni nga maanaam ay at yoo ni tey maanaam dina la satisfaire koo xamante ni yow da Euh, ba ngaay ngeen jógee di jaay si ay dàll euh, tey ñu gis ne Sénégal am na président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye naka nga ko dundee. waaw loolu moom dañ ciy sant yàlla rek loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax président Diomaye Faye moom suñu président la comme ni nekkee président ñëpp quoi ñun ay jeunes lañ ay citoyens wax dëgg yàlla bi mu euh, nekkee ci campagne bi ñun ñi si ñi ko doon jàppale ci lañ bokk ñun waa Ngaye ñëpp Ngaye boo dee xool tey ñi fi nekkoon ñëpp ñu ngi doon jàppale suñu président Diomaye ba yalla tay may ko ndam diko ñaanal yeen bi mu di oyof ci kawam quoi moko Ousmane Sonko quoi ouais vraiment voilà. euh téméri fan yu mi ñëk tok ci bop réew mi bu doon soppi dar dar dar yow lan nga gis ne mom lay soppi. wa mais xam nga mom li wara mëna soppi mom bari na waye nag nekkul ni lepp la mëna ñëw rek ci wala ñaari weer wala sax at mu lepp day soppi étape par étape.

débat ñu wax ci télé publiquement nit bi tey euh, lan nga gis ci président ak consommation locale bi ak produit local yi nga xamante wa doomu réew mi ñu ngi koy defar tey yow boo doon conseil président bi ci loolu lan nga ko ciy conseillé waaw loolu moom liñ ko ci conseillé nekk na loo xam ne si nii lu bari la buñ ko doon wax tey du si du si jeex maanaam liñ ci gën a soxla daal li nga xam ne nii tey moom la suñu doomi réew du dugal liggéey lu si mel ni dalu ngaay comme Moussa suma xarit di liggéey dalu deri dalu ngaay bu fekkee ni moom li muy liggéey da ko jëlee produit bi yëpp di ko jëndee fii ci dëkk bi ci Sénégal di ko liggéeyee fii ci Sénégal di gis tamit même qualité boo xam si ni tey moom daf koy jaay boo xam ne si ni diñ di ko liggéey comprendre nga léegi loolu bokk na ci li nga xam si ni ñun dañuy empêcher toujours suñu suñu suñu suñu liggéey quoi li ma bëgg a wax foofu mooy ñu tënk ko rek mooy nañuy consommer li nga xam si ni moom mooy suñu suñu suñu suñu suñ suñu moomeel quoi voilà mais li nga xam si ni day jógee bitim waaye dem ci ay bitim réew ku ci mel ni Maroc gi rek soriwul ñoom duñ nangu sax ay dàll nga ko fay dugal wala dara mais Sénégal rek ngay gis lu produit bu jot rek ñu dugal ko fi bokk na li nga xam si ñu jaay pour ñu mën a jaay problème lay doon quoi loolu moo ñu gën a mën a mën a moo ñu gën a sonal quoi vraiment sa kàddu gu mujj lan la waaw sama kàddu gu mujj moom du du du du bari waaw dañ leen di encouragé yéen tamit seen liggéey bu rafet bi ngeen di def toujours yéen a ngi dox ci actualité li nga xam si nii day jàppale. Green View TV. Green View TV waaw nekk seen boo xam si nii ñëpp ñu ngi koy suivre quoi képp koo xam si nii bëgg na lu baax mi ngi koy suivre ndax du ngeen joxe benn information boo xam si nii information bu négative la en plus di jàllewaale tamit benn message yoo xam si nii day sama lépp di suñu xarit di suñu doom nday ku ci mel ni Fallou Ndiaye Benjamin bu Waly Seck moom day jàpp ci liggéey bu bu baax a baax a baax démb dañoo def benn dàll bu rafet dem yóbbul ko ko di ko jaay mais dàll bi moom li mu ko jënd rek ñun mën nañ cee liggéey junni dàll boo dee xool kon loolu dooleel nit ki la quoi ki yëkkati benn peeru dàll di la ko jaay il est que nga jënd njëgu dàll bi mais dafoo loolu da ngay yëkkati ci la yàlla jox nga jënd valeur boo xam si ni ko ciy liggéey kon kooku si ni nit ku baax quoi yéen tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm ci interview bi nga ñëw jël si fii suñu métier bi di ñu ko waneel tamit loolu ñun amuñ seen fay quoi di leen bëggee di leen ziar bu wér a wér a wér waaw tey nag euh, ñu ngi nii ak sunu mbokk Jakarta Maani euh, ñoom it danoo bokk ci événement Korité bi wax dëgg fa yàlla ñu ciy bay seen waar jëwri ñu ngi lay jaajëfal. asalaamaaleykum maa leen di siyaar bu wër bàyyee ni si jàmm yéen a ngi am tawféex. waaw ñu ngi am tawféex euh, tey ndax événement Korité bi ni muy déroulé nii yéen a ngi ciy gis seen bopp. mais événement Korité bi bon tene na quoi tene na ndax danoon danoon heure bi ay jamono dañ doon dem ba yëg suñu bopp. waaye nii ren moom bon euh, gis ñu seen bopp daal ndax xam la problème càq-càq bi léegi dafa nekk loo xam dafa yàqu léegi euh, ñun si réew mi lañ dëkk juddoo fi màggee fi yarew fi tey yi xam ne kenn ku ne xam na Sénégal nu mu mel xam ne nu mel tey ñun tey jii suñ nekkee si liggéey bi du liggéey càq-càq bañ rek ñaañi kenn bañ rek bañ rek dugg si yenn yi ñàkk fayda li ñuy liggéey nii dañ koy liggéey di jox suñuy njaboot jox suñuy waajur ñun ñu ko fi gis ne ku nekk ay sujet de famille la ñii ñoo yor seen kër ñii si la ñuy joxe de dépense ñii si la ñuy fay locatel ñii si tey ji tey am ñoom tey jii suñ liggéeyu tey jii billaay wala duñ ko te fii lañ dëkk mais nan nga waxtaanee agents yi ñooñu étrangers yi ñoo ñu yàq ñoo ñu sonal ndax dañuy dañ nga wax ne déedéet billaay walaay taalaay liggéey bi. nan lañ leen yàqalee ak nan lañ leen sonalee maanaam ndax mën nanoo gën a xuus ci kàddu googu. waa kenn loo dem si sawar tey soo ñëwoon tey euh, euh, Kër Massar gi tey mën na nekk 400 Jakarta 400 Jakarta yow jàppal na 100 yi ñooy sénégalais 300 yi yëpp ay étranger la tey bu ñu duggee ci càq-càq bi tey ñun fu ñu doon yóbbee 1000 francs ñoom soo leen fayee téeméer ñu yóbbu Kër Massar gi soo fay woon 5000 francs nga dem doo dem Dakar ñun du la yóbbu mais ndara ñi bu ñu fi ñëwee étranger yi tey dañoo yàqal soo leen fayee 2000 sax yóbbu la Dakar. si gaz nga yàq nga daw sa gaz waat ñëw doo am dara ah mais na nga wax te dee billaay wallaay taala lii moom nguur gi moom wax dëgg yàlla moom dañ koy ñaan ngir yàlla la wasul na xoolaat na xoolaat taxawaayam bu baax lii moom na ko fi jëlee dinaa nan ko fi jëlee moom laa bëgg gën a ah ñu xuus ci euh, ndax yéen dawal jakarta ba jakarta bii ngeen di dawal ndax dañ leen di laaj ay kayit ah oui bien sûr fi dafa nekk loo xam ne nii euh, dafa nekk loo am association association g e, e transport espèce la tudd da ngeen am GIE. ah très intéressant ça c'est waaw ah, GIE transport express la tudd man maay président bi bon euh, fii dafa nekk loo xam ne si ku fi ñëw dama lay laaj euh, sa certificat carte d'identité ak sa certificat de domicile man ñaari yooyu laa lay laaj ma ne wax la ay charte yu fi nekk ma ne ñun dafa nekk loo xam ne nii. bëgguñu fi ñaan police wala gendarmerie bëgguñu loo xam ne lii ñu lay lii ñu lay sas bëgguñu loo xam ne su la si jàppee duñ ko fekk si yow de un war nga am certificat de domicile am photocopie carte d'identité ma xam fi ngay yeewoo certificat de mooy xam fi ngay yeewoo ndax fii dafa nekk loo xam jakarta bi dafa am ñoo xam ne da ngay ñoo xam ne dañoo yor ay jakarta bugg ay liggéeykat loolu dañuy jaar si man jox ma ko ma nekk si responsable bi léegi soo ñëwee jox ma jakarta bi sa versement 3000 francs si man nga koy man nga laaj léegi versement 3000 francs boobu léegi sa booyi léegi versement 3000 sa mënutuñ ko nan nga ñu ñoo yàq liggéey bi billaahi walaay taala bu njëkk da nga doon dem di liggéey gis sa bopp di am ay 20 mille ay liggéey bi yàqu na yàqu xam ne kenn xamul la la te ñun dafa nekk loo xam ne ñun suñ suñ euh, station euh, moto bi nga yor da am CMC da ngay am CM CMC ne da war am ñaari casque ndax transporteur nga yeb transport ça veut dire da ngay yeb benn nit yow mi ngay daw war nga sol casque ki ngay yóbbu war na sol casque. ñaar yooyu la ñu am ndax instant yi nii bon ba ñu waxtaanee am na ay kilifa yu mu doon waxtaanal ma ne ko ñun de su ma sañoon tey jii moto yi yëpp am ay carte grise am assurance moto yi am ay permis waaye nit xam nga Sénégal moom mel doo jënd sa moto benn quatre cent cent cinquante mille nga bëgg ko miiteel si saa si bëggloo ko wutal permis si saa si bëggloo ko wutal assurance si saa loolu day xaw met métti comprendre moo tax instant yi nii dafa nekk loo xam ne ñun ñun association bi foofu ñun ñun dañoo nekk loo xam dañu am ay kayitu leer am ay sàtt yu leer am suñu groupe boo xam ne ñu tey ñu doon am suñu kees kees boo xam ne kees sociale la tudd boobu dafa nekk loo xam ne kenn ku nekk heure boo liggéeyee ba wàcc da nga génne 250 francs xam ne da koy def si kees bi kees boobu tey moo ñu moo lay dimbale koo xam ne ni bis bu la ñaanuñu ko yàlla soo si defee choc si kees boobu la ñuy génne benn nampaay jàppale la ñun noonu la ñuy def ñun suñu association dafa nekk loo xam ne dañ lay jàppale te kees bi si dem na sax ba yàlla suñu doom chaque année day gën yokk li muy yokku tey jii dana waxoon ku feebar wala ku def choc la ñuy génn sa xaalis jàpp la léegi dem na sax léegi ku am xew ngay ngénte wala ngay céetal ni mu dee dañuy génn benn cinquante mille jàppale la moo tax en général moo tax tey ji dafa nekk loom danoo déggoo suñu mbiir dañu am kaar guddi am na ñuy liggéey kaar guddi am na ñuy liggéey kaar bëccëg ça veut dafa nekk lam danoo déggoo si biir bu baax a baax moo tax tey ku si jàppal kuñ si jàpp police wala gendarmerie dinaa dem jàpp dinaa dem def yëfu julit dinaa dem ñaan ndimbal nangam nangam ma xam lu la jàppee après bis bobu su jugge ma ne la ñu la jappé di bu fi ñaanit yalla bu ngi ñëwaat bañ jappé la lii fekkee casque la japp fexeel nga jënd casque man nangu naa police wala gendarmerie tey suñuy def ay contrôler dañuy contrôler nit ñi ku solo casque ñu jàpp la nga fay 6000 lolu mo am solo mo gën tay nga japp nit ki nga japp nit ki jël caabeem te doo ko laaj sa keuyit nga di ko laaj ay 5000 wala nga koy laaj ay la corruption ah oui lolu moo fa wara jeex man nangu naa bi soo ko jappé contrôler laaj ko ay keuyitam so amul ay nga fourrière ko yaa ngi dégg bu baax soo amul casque nga loo ko eh casque bi da ngay fay 6000 kon tey nit ko ni muy dawalee oto takku ceinture soo takku ceinture ñaan da ngay fay 6000 mais loolu mun naa am loolu su demee ñun dañuy respecté loolu mais saa su ne te aussi ñun war nañ la am sax taxe loo xam ne dañ koy dugalaat si état loolu maire yi tey am na loo xam ne comme ni yeneen dëkk yi soo demee Kaolack wala Thiès bu nii dañuy fay dañuy fay juuti boo xam ne ne chaque chaque mois ngay dagg mois bi am bi loolu soo ko defee maire ñaata employé lay fay mais nan wax dëgg liggéey bi dafa nekk loo xam ne dafa dafa wër si àddina bi léegi cag-cag kenn mënu ko fi jëlee dafa wër àddina bi xam nga la laaj organiser ak kilifa ak sart yi ñu si war a laaj ñun tey suñu dëkk bi tey ñun doomu dëkk bi tey ñun nag ñoo war a liggéey transport mais soo demee Guinée wala Mauritanie barki Seexul Xadim laa lay wax ni yow mi sénégalais soo fa demoon doo liggéey moto ay ay kàcc ak ñi doo ko liggéey pour nga yore moto dawal sax amoo fi dem ndax yoon wi état yi ngay li ngay fay. ci biir loolu laa bëgg a gën a xuus ak yow tey Sénégal am na président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye euh, tey téeméeri fanam yi muy njëkk toog ci bopp réew mi muy 3 mois 10 jours su doon soppi daar daar daar yow lan nga gis ne lan lay njëkk a ah président moom sama turandoo la moom macha allah waaw ah, Bassirou moom dañ koy wax dara ak jàmm yàlla lépp lu mu yenoo yàlla na oyof si kawam di ko ñaanal ah dund gi cher na dund gi moom cher na courant bi cher na ndox bi cher na locatel bi cher na tax dinaa la wax tey nga xam ne billaay wala ji nga ne réew mi tey ñun tey cag-cag yi lu tax muy chaque année muy gën a bëri mais entreprise ñoo fayatul entreprise bi nañ ko wax te dee kenn fayatul billaay walaay soo demee si entreprise wala Auchan wala nangam ndare ñi nga fay fekk man lu ma nangu ndare mi da koy nangu na fay nga fay ko trente loolu dafa war a jeex ñun doomu dëkk bi tey ji ñun ñoo waral jiitu si lépp entreprise tey su nekkoon loo xam day jël quinze ñun nu dee dee treize personnes yi rek ah treize treize personnes dee dee war na nekk ay sénégalais waaye soo fa demee usine jëni sa soo fa demee nii ndare ñi nga fay fekk ñoo bëgg dara jam ñaaji bi liggéey naa usine façon usine bu ne commencement bi ay 7000 la doon fay mais nan ko wax te dee dañoo dem ba si yàgg ñu jékki dagg sang wàññi salaire bi xam ñaar la ñuy fay journée 3000 francs léegi xoolal nga jógee Kër Massar paas dem jam ñaajo nga war a ndékki war a añ si 3000 francs dañ ko war a dee léegi càq-càq bi yaa ngi seen borom yaa ngi lay suturaal lu loolu yaa ngi liggéey nu dee dee balaa ngay wàcc nu mu dee da nga am sa benn 10 000 mais 10 000 tey mën nga see mën nga see dund sa waa kër su subaa da ngay amaat mais da nga ci benn liggéey ay journée 5 000 wala journée 3 000 doo ko gis doo fa dem ñan ko war a dee ci biir loolu laay gën a xuus sax mu mel ni ne cag dafay xëy di a bëri muy ndakaar muy Thiès muy kawlak muy foo munti dem ci Sénégal euh, tey jeunesse bi ni ñu abandonné seen i dëkk abandonné tool yi abandonné jàng bi abandonné lépp ci cag-cag yow tiitloo wala tuuti mais macha allah euh, euh, fi nga wax ne dinaa dinaa si fekk si ndax ji nga loolu di nga liggéey bi dafa laaj dafa laaj organiser organiser boobu la amul di nga kenn ku nekk dëkk fi nga dëkk war nga fa mën a gis sa bopp kenn ku nekk fi nga dëkk laa du liggéey cak-cak war nga fa mën a gis sa bopp mais soo gisee tey waa Thiès du daw si ñëw dakaar waa Kaolack di jóg di daw si ñëw dakaar waa Saloum di jógee Saloum di ñëw Dakar mais dañ ko wax dañoo cak-cak bi Dakar la doxee Dakar la doxé té yéne dëkk yi dé ay 2000 lañu ñuy wala 3000 nangam nangam fi itam ñu dé da nga fi wàcc sa benn wala sa benn 10000 wala sa benn 20000 mais Dakar lu mu fi am lu fi am ni ma sha allah way dafa laaj organiser ñu organiser ko dajalo ko bolo mu am ay kilifa am ay charte ñu né fi ku fi liggéey ku nekk war nga am temps am war nga am sojour war sa li sa sa lii sa weer war nga fay meer temps mais lo su nga défé nit ñi kenn ku nekk day toog sa dëkk liggéey ñun ñi ci si suñu bopp waaw dafa mel ni comme tata yi nu ñu organiser woo taxi organiser kalandoo yi organiser woo ko yéen cag-cag yi dañ leen war a organiser war a organiser organiser boobu mooy lan dañoo war a am kilifa kilifa koo xam ne dañuy toog ak moom mu jàppale ñu ñu waxtaan ay jamono Macky Sall bu mu fi nekkee woowoon nañu fii waa président cag-cag bi mu nekk dakaar am na ñu mu fi woowoon waaye ñooñu ba mu leen woowee bon ñoom seen bopp lañ fi nekk la ah. ba mu leen wooyee da leen wax ñu wax seen soxla mu neexale may leen xaalis ñu jox leen seen bopp la yem ñi jaar nañ ci tukki ñi dem changé lenen comprendre man dama fay ñew pour nekkal ndaw ñi nak li ci li ci li la teddee ci li la teddee cag-cag bi ci li la teddee ci la am soxna am ci sama lepp am sama ngént sama dom te saa ne damay joxe dépense te mu deedee mu deedee danaa joxe junni dépense mais kon nañu sante yalla mais li machallah mais li dafa nekk lo xam entreprise la nit ku nekk ku dëkk fi war nga ci mëna ci sa bop waye dafa laaj am ay sàrt yu ci nekk am ay kéet yo wara am am barge bo xam ni barge bi moy moy nek barge bo am transporteur lay doon cak-cak nga xam yow day nit ki da la wolu jox la alalam nga livrer ko nit ki da la wolu sax mu yónni la xaalis mais li dafa nek yo xamne dafa am euh, organisation bi moo mo des moo tax am na ñoo xam ne dañuy rax duggu sin biir di def naka zone mo nak agresseur yi ngay deg wa ñuy keuf telephone jàmbur wa ñuy keuf saagu jàmbur wa ñuy këf garafaas jàmbur so xëy ñu ne cak-cak bi te du cak-cak mu doon la yore nii du mu boo nit ñi te du cak-cak dañ ko wax de ñun suñ biir dañoo xamante suñ biir moo tax paysaay ñun ku ñu bëgg a raxas dañ lay génne fi ñu la eh doo fa yebee dama nga nële. jawriñ sa kàddu la. waaw mais di sant yàlla bu baax di leen wax ne ah ñu ngi euh, duggoon si weer si weeru koor génn si bisimilah rahmaani rahim mais di ñaan suñu borom yàlla daf fi jàmm suñu président bu bees bi Bassirou Diomaye Faye ñu ko ñaanal bàkki Cheikhul Khadim lii mu yanu yàlla na oyof si koom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye nag étranger yi war na see wax ñooñu ko téye de ñooñu sonal waaw jaajëf. jërëjëf voilà tey nag euh, ñu ngi fii ci Njàmbur cosmétique euh, Njàmbur cosmétique nag boo ko déggee. Euh, xeetu baax baaxu xale yu jigéen ñi la fay jaay. euh jeur ñi ngi lay ziare. noonu nga ko ñi ngi la ziare baax. mbaa yéen nga am tawfeex. ñi ngi am tawfeex bu baax ma sha allah. wa tay nak ñi ngi ci Ndiambour cosmétique euh ñu gis ne xalé yu jigéen ñi bari nañ fi lool lool lool euh naka ngeen dundé korité bi waajal korité wa ñi ngi sant nak baax baax baax. di sant ñepp tamit ñi nga xamante ni fépp suñu fan ci nek rek ñu lay sant bu baax ndax tamit bo gisé li lepp rek pour ñun ak ñom ay doomu ndey lañ. di fi def teewal bu baaxa baax ñu leen jaay xam nga di leen defar prix bu baax baax pour ñu mëna a dara quoi mhm. motax bo gisé ñu tamu biti bi tamit loolu la et ñu leen di accueillir accueillir bu normal di waxtaan ak ñom di kaf ak ñom di ray ak ñom et puis ku ci ko xam ne ni jaay na tamit dañ lay joxale numéro bi nga xamné lo ci xamu rek boo ñu ko avancer ñu tàppale ci prix bi pour nga mën ko xam nga xamné do am jafé jafé ci problème jaay bi dal loolu motax ñom ñoom ñu tàmm place bi dal ma sha allah wala macha allah waaw loolu moom ñaambur cosmétique moom eh, ay bagage jigen lay jaay mais mom lan ak lan lay jaay ñom ñun mom bagage jigen ak yu goor dañuy jaayale parfum dañuy jaayale ay sëfa dañuy jaayale ay euh, petit teg yëpp la ñuy jaay tamit ay produits français tamit dañ koy jaayale produits français yëpp ay parfum original ay Longchamp ay Private Gold ay Balak sens yëpp la ñuy jaayale daal. mais mel ni aussi xeetu saabu yi da ngeen koy jaayaale. dañuy jaay saabu yëpp la ñuy jaay maanaam li cosmétique laaj yëpp dañ koy jaay dañuy defalaale tamit ay mélanges yu baax pour xeesal tamit ay mélanges yu baax ñun dañ koy jaayale tamit waaw ñu ma wax dëgg yàlla moom. yëpp la ñuy jaay moom maanaam ñi gars soxla woo yëpp ba baax baax yëpp daal ñun dañ koy jaay incha allah. mais ndax prix abordable ndax cherul. non prix yi moo tax nga gis fi gars yi nii macha allah prix yi xéwale ma prix moo tax moo tax nga moo tax nga gis fi gars yi mel fi nii parce que tamit tamit gars yi tamit ñëpp xam nga Sénégal tamit moom ku nekk tamit xam nga li nga bëgg koo si jaay tamit benn prix bi bu àgg gis fa gis prix bu gën a yomb tamit day dem feneen ko quoi moo taxit moo taxit prix bi tamit da nga xool bu baax baax doo xool tamit ne man dama bëgg bénéfice bu baax rek ngay teg lu bari daal da di jaay ngir ñu amaat dara moo tax gars yi di mën a ñëw chaque jour di jaay demaat di ñëwaat daal parce que tamit fii moom seen moom boo bëggee boo bëggee liggéey normalement da ngay jaay li suñ Fall doon wax rek Bayra moom wutal li nit ñi bëgg rek te di wax prix buñ mën daal <laughs> Bayra waaw loolu Bayra jaay la <laughs> waaw euh, ndax korité daaw ak korité ren nga foog yow ban moo ci ëpp nit non am na différence tuuti nag parce que daaw fële la ñu fekkoon fi mu ñu fekkoon daa xawoon na fekk ñu xaw a ruqe tuuti mhm. mais tamit client yi moom fu ñu nekk rek ñoom danañ ñu fekk quoi parce que tamit liñ leen di defal la quoi liñ leen di defal mais ren moo wax dëgg yàlla moo xaw gën naa taw feex ak daaw daal mhm. waaw am na coppeeku bu baax a baax ren moom macha allah macha allah yéen ngi ci gis seen bopp bu baax gis suñu bopp bu baax client yi tamit ñu ngi fexe ñu gis seen bopp baax a baax ñoom tamit <laughs> Sénégal am na président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye noo ko dundee waaw di sant nag di ko ñaanal suñu borom yàlla yan bi oyof si kawam ba lépp loo xam si ni euh, bëgg na ko ci réew mi rek yàlla na am lu kawe njortam ndax wax dëgg tamit Euh, boo gisee ñu si moom yaakaar tamit li ñu ñi la parce tamit réew mi nga gis nga ni mu demee manqué na liggéey boo taxaw bëgg ay nii rek yow sa yaram day daw boo ko defee lépp li nga si nii am nañ ko yaakaar si nit ba nit wuy si leen xeex ñoom ba lii taxaw rek nañ leen fay kol rek daal xam nga faxa leen leen ay liggéey indi ay yoo xam si daal Sénégal dana si mën a gis boppam wàññi lépp daal parce Sénégal loo fi mën di defit te wàññi woo defee te wàññiwoo dund gi moom daanaka moog seera yam ndax ñoom lekk daanaka moo leen moo leen ëppal foofu laa bëgg sax nag ñu xóostee mooy tey président bu bees bi nga xam ne muy Bassirou Diomaye Faye euh, téeméeri fanam yu muy njëkk a def ci bopp réew mi bu doon soppi daar daar daar yow lan nga gis ne moom la war a mën a njëkk soppi loolu la moom la war a njëkk a soppi man nag li ma gis si mu war koo njëkk soppi maanaam fexe ba dund gi wàññeeku tuuti nit ñi am liggéey parce que tamit boo xoolee daanaka lu ci bëri rek Macky defar ko pare daanaka ab motaliwaat lay doon parce que yi mu a tabax stade yeeg yëpp euh, terre beeg euh, berte beeg yëpp defar na ko pare maanaam boo amee lenn loo xam ne si gis naa ne war na ko mën a defaraat daal wala mu war koo mën a gaaw see taxaw daal mu wàññi dund gi ndaw ñi mën a taxaw am confiance daal parce que Sénégal boo xoolee daanaka loolu moo gën a métti fii euh, période bi ñu toll dund gi moo gën a seer daal ñu fexe ba wàññi ko. ndax wa Green Bi TV ndax eh, ko la fekk ci barab bi ngay liggey bëgg la ko bëgg la ko wan xam nga tamen jeul la ngay waxtaan tamit kooku da koy ñaanal tawfeex parce que yombul tamen ndax bu njëkk beug nga di nga di nga liggey beug nit ñi gis ko te du yomb da ngay fay lu bare bare bare dem moy loolu mais yeen bo leen ñëwee di def ngir yalla te yalla tax tamen dañ leen ñaanal mu réussir ngeen am ci lu kawé seen jot ci ak seen saali nga nga wa tour boutique bi ak numéro téléphone bi Njàmbur cosmétique mhm. euh numéro téléphone bi 77 314 51 14. ñu ngi fii nag ci benn atelier couture Thier création fekk fi sunu yaay ju baax ji sama yaay ñu lay jaajëfal. waaw ah, maa ngi leen di di leen nuyu di leen jaajëfal bu tey nag euh, ñu ñëwoon fii euh, seet si leen ndaxte yéenay ñëw mbir yu yaañ ji tey naka ngeen dundee euh, korite gi. Ah, rek sant rek comme que ñu ngi ci wàccaay yu mujj yi waaw loolu rek lañ ci am luñ ci wax parce que. korite moom xam nga korite moom yàgg nañ ko feete korite fête bu neex la tamit te lu ci korite xale la xale yi ñuy la ñuy gën a farataal wa korite xale yi la faratal, gën a ñaw bi yéen a ngi Kune gis seen bopp bu baax waaw ñaw bi ñu ngi sant yàlla bu baax ku nekk rek sa ñaw yi nañ bu baax da li nga ñaw rek parce que ñaaw yëpp ñu ko jeexal tamit mais sant yàlla bu baax ñaaw moom am na am na bu baax a baax. par rapport ak ñaw yi euh, tey ñan nga gis ne ñoom ñoo gën a ñawlu xale yi wala jigéen ñi wala mag ñi ñan ñoo gën a ñawlu. góor yi nag ñoo gën a ñawlu ak xale yi mais mag yu jigéen yi moom bëriwuñ luñ xam naa seen hôtesse yi rek lañ leen di ñawal ñoom lu ci ëpp tabaski bi lañ leen di ñawal. mais gori yi ma sha allah ñew nañ bu baax sax. mo melni dal kon janka ju sew gi dal ñom ñoo am benen façon solo bo xamante ñom dafa melni ñom tayir daal li lijjanti wuñ ko. mu ngi jéeg ju daw ji dal hôtesse euh, val yi rek lañuy faral di ñawlu li ci ëpp ñi ci ëpp parce que duñ duñ am jotam parce que ñu ngi ci wañ bi di togg xamna naa peut-être loolu mais tabaski bi dañuy ñew bu baax dañ ci gis suñu bop ndax ñawi serna wala serul no ñaw legi nak. cher na cherul parce que ñaw léegi mënatul cher comme nu doon chéré parce que tailleur yi bari nañ ñawum jaay mi ci bedd bi tamit bari na te lu ci ëpp loolu moo yàq liggéey bi liggéey bi daan na fi gën a dox nag mais léegi moom jaayu mbedd mi moo yàq liggéey bi da dem doo tailleur dangay dem fay ñu ñawal la nga ñëw toog ci bedd bi di jaay li ngay na ci mbedd bi moom ngay dem wuti ci tailleur bi loolu moo tax ñaw wàññeeku na comme nu meloon daal. kon dafa mel ni yéen ci côté ñëw bi da ngeen am ay difficulté organisation bu war da cee ñàkk. Ah, amu ci de organisation bi ah man de ko comme niñ ci doon doxee ñi ay association yi nii man xaw ma sax association am na ci. culture couture bi wàññeeku na bu baax sax bu baax bese. waaw am nañ ci difficulté li ma la wax rek mooy njaayum mbedd mi da gis koo xam ne day dem fay tailleur comme zaaru HLM yi nii boo ñëwee ñu ñëwal la nga dem jaayiwaat boo ñëwee ci buntu atelier yi jaambur yi sax ngay gis ñu koy jaay ñu taxaw di ko jaay léegi au lieu nga dugg ci atelier bi ñëwlu léegi da dem jënd ci kooku rek dem sa yoon xam nga loolu tamit ki jël place am di luye di fay du ko arranger te loolu moo moo fi bari daal moo tax léegi ñun suñu clients yi ñuy ñawal lu ci ëpp sax ci Europe bi la ñuy nekk ñoom ñoo lay woo comme que foofu ñaw bariwu fa nga ñawal leen yónnee leen ci GP yi waaw loolu daal moo ci xaw a tane sama yaay bu ñu génnee foofu dafa am feneen fa ñuy dugg muy Sénégal am na président bu bees muy Bassirou Diomaye fay waaw euh, noo ko dundee. waaw neex na sant yàlla rek parce que tamit dañoo bëggoon changement parce que dëkk bi taxawoon na taxaw goo xamante ne ñun ñëpp ko yëg gis nga ba ci couture bi sax dañ ko yëg sentir ko mais sant yàlla daal ñun comme que ay ndaw lañ ñuy liggéey loolu lañ bëggoon comme que yàlla may nañ ndaw nag muy président Sonko ak président Ousmane Sonko président Diomaye ak président Ousmane Sonko sant yàlla sant yàlla bu baax mbégte lañ ci gis. waaw dëkk bi daal commencé naa am peex peex mu neex. allah. ah man de dañ na wax dëgg yàlla la ma doon yëg si sama xol dañ na dañ na bu baax sax dama mel ne dañ ma yenni àddina bi waaw loolu la waaw. tey Faye mooy président euh, tey buñ ko doon wax naan téeméeri fanam bi njëkk ci bopp réew mi donte amugo ko waye te fii ak téeméeri fanam bu njëkk ci bop réew mi bu waaw 3 mois 10 jours bu doon soppi dar dar dar dar lan lay soppi. commencé na soppé ko dëkk bi pour l'instant ni non sérieux nak du ci de so xolé événement bi sax xam ne dëkk bi amna na lu soppeeku. tàmbali na sha allah wallahi tàmbali na tàmbali na bu baax baax waxuma la 3 mois yi de bu ñu ci 6 mois yi dinañ xam ne lépp dëgg mm-hmm. boo duggee ci marché bi dañ ko xam changé na commencé na changé. kon tey bi ñu toog fii ci dëkk bi liggéey ñun amuñu lu dul Sénégal mm-hmm. amuñu lu dul suñu parents yi amuñu lu dul suñu doom yi ak suñu jëkkër yi mm-hmm. xale yi ñoo war a toog ci dëkk bi liggéey buñ liggéeyee rek benn dëkk tubaab du ñu raw benn dëkk tubaab. ñun li ñu am dañoo amul woon ay président yu ko mën a gérer mais am nañ lu baax lu baax lañ am am nañ suuf am nañ ndox am nañ yàlla ni mu ñu jagleel ñun Sénégal dafa bari géej gi rek mun na yor Sénégal ak mbay mi waxatuma laa ñuy dugg ci ay gaal di dee di liggéeyal ay tubaab ñuy ñoom ñuy développé te ñun ñu wara defar suñu dëkk. nañ toog fi daal liggéey gëm naa ne day neex te am nañ président bu mel ne Diomaye ak Ousmane <laughs> Diomaye ak Ousmane moom ah yal na leen yàlla defal yal na yéen bi oyof seen seen kaw waaw ñu la ñaan di ñaan dëkk bi mu am taw feex daal di ñaanal ñëpp di baal ñëpp àq ah, tamit comme que weeru koor gi moom gis nga bi président Diomaye génnee rek la féexum Europe bi dugg si mu sedd <laughs> yéeguñu sax koor gi macha allah wallaahi wallaahi mais sama kàddu gu bujj di gërëm sama yaay sama papa ak sama borom kër waa yal na leen yàlla def li gën ci Sénégal daal yàlla may ñu tamit suñu métier bi président Diomaye ak Ousmane ñu ñëw jàpp ci couture bi couture bi narmaylu won na dal pour man ci benn côté surtout ñun nga am atelier yu ma sha allah atelier bi bo gisé mo démé ni gouvernement yi japp ñu ci couture bi mais ma sha allah fi yéegoon na sun bopp baax mais dañuy ñaan rek xeyna tamit lo gis liggéey bo gis tamit non mais sante yalla bu wër sante yalla bu wër wër wër lepp fi lañ ko amee. waaw ma jërëjëf yow man ne maa ngi lay jaajëfal bu baax a waax a baax waaw maa ngi jéggulu kàddu yi bu amee loo xamante ne ñeegas na ci maa ngi jéggulu ñëpp di baal ñëpp ah di la baalu ah bu baax di baalu sa caméraman bi ah bu baax ti ñu ñaan korite tey jàmm ak salaam. asalaamaaleykum tey nag euh, ñu ngi fii ci marché Kër ma toog ak sunu yaay ju baax ji sama yaay ñu ngi lay jaajëfal. waaw kay maa ngi leen di nuyu. tay nak dañu ñëw fi ci marché bi fekk la ngay jaay njaay bi sama yaay ñi ngi dëmmal korité naka nga nga ko gisee ak dëkk bi ni mu demee. nii gi moom dafa dëgër moom. wa dëgër na lool sax wax dëgg yalla njaay bi moom nim daan doxé doxé wu ko ren. da daan dox korité mo daan dàq tabaski. ngay njaay moom ren wax dëgg yàlla moom wu non korité mo daan dàq tabaski njaay bi demeewul noonu lan mako waral. dëkk bee dëgër nit ñi xaalis nit xaalis de waaw nga xam nga danga daan ñëw marché lu ne nga dugg ca jëndal say doom ay yéreek ay kii lu ne nga dugg ca mais ren nit ñi mënuñ ko daanaka ñenn ñenn rek ñooy jënd waaw jamono ji daal neexut moom dëgër na lool xaalis amut wax dëgg yàlla vraiment. Sénégal koo laaj mu ne la jamono ji naqari na Sénégal amul xaalis euh, sama yaay lan moo ko waral en tant que jigéen ji nga xamante dafay dem marché en tant que jigéen ji nga xamante ne dafa yor ay doom. xam nga nit ñi dañoo talut lu dul lekk fi mu ne nii jamono jii ñu toll nii lekk rek la nit ñi tal añ ak réer ak ndékki moo sonal nit ñi ndax bagage yi añ ak réer ak dafa seer ceeb ak diwlin seer na yeneen yi tamit seer na yépp a seer waaw yépp seer wax dëgg yàlla moom daal. bu wàññeekoo daal moom ñu jël. su wàññeekoo ñu jël Sénégal am na président bu bes. muy Bassirou Diomaye Faye euh, ñu gis ne tabb nañ ko jeunes yu bëri ñoo ko voteel naka nga dundee loolu sama yaay. waaw ah sunu président Bassirou kooku moom dañ koo bëgg waaw ndax euh, nit ñi dañoo bëgg Sonko bëgg Sonko moo ñu bëgg Bassirou ndax Bassirou mooy Sonko Sonko ñu am lool ci yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na jik Sénégal Sénégal jik ko Basiru daal yàlla na ànd xéewal gu yaatoo yaatoo yaatu Sénégal naat xaalis am dund gi wàññeeku ndax nit ñi sonn nañ mhm. sonn gu uh-huh. moo tax ñu révolté wu rek wooteel Basiru te Basiru xam na niñ ko voteelee sax ne xam ne euh, vote bi moom Euh, boo bu ko xoolee rek xam ne nit ñi danoo sonn moo tax ñu bëgg changement waaw dañoo bëgg changement comme yàlla def na nag am na changement yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw na ko yàlla na yenn bi oyof tooy ci moom waaw yàlla na yàlla na ko yàlla jàppale waaw loolu daal la ñuy ñaan. Mhm. Euh, tey président bi euh, téeméeri fanam yi njëkk ci bopp réew mi su doon soppi daar daar daar lan lay soppi. wàññi ceeb beeg du diw gi wàññi daal dund gi na wàññi dund gi waaw dund gi daal moom moom lañ bëgg mu wàññi ko waaw. sa kàddu bu ñu lan la sama yaay. mooy Basiru wàññi dund gi rek te yàlla jàppale ko suturaal ko oyofal yen bi ci kawam. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sama yaay. waaw